waaw maa ngi leen di nuyu ñëpp tey ku ne xam na ne mooy le premier vingt 2024 tey ma xëyoon ñëw comme ni ma ko diggee woon démb ci pencum ndawu réew mi ci bureau assemblée nationale mooy président assemblée nationale Amadou maam Diop ma déposé fi une proposition de boo xam ni day deux loi 2002 20 15 mai deux bi nga xamante ni mooy wax ci mbirum règlement intérieur assemblée nationale mu di loi organique boo xamante ni article 60 ci li nga xamante ni maanaam mooy règlement intérieur assemblée nationale moo ma ko permettre permettre ko député bu nekk. lii nag boo gisee ma def ko mooy ku ne xam na ni 2002 dafa am lu nekkoon ci loi bi muy loi organique mooy article 97 98 ak 99. article yooyu yëpp dafay jëm di wax ci premier ministre di wax ci déclaration pour générale bi ak motion de confiance bi. Euh, motion de censure ak vote de confiance question de confiance ñett yooyu la doon wax mais biñ koy modifié li nga xamante ne mooy loi organique 2019 14 biñ ko indiwaat duñ ko see boolewul coow lu bari lool man nag en tant que député ma ne dinaa jël initiative parlementaire boo xam ne loolu nga xamante nekku si woon tam war see nekk ñu dugalaat ko ci li nga xam mooy si biir gi loolu moo tax ma xëy tey ñëw déposé ko ndax ko ne xam na ni boo jëlee constitution bi article cinquante cinq wax na ci mbirum déclaration pour général mais joxu li nga xam mooy délai te ku ne xam na ni même président Macky Sall mi fi nekkoon respecté wutoon li règlement intérieur ensemble sa waxoon 2002 parce que trois mois yi mu waxoon Macky Sall di respecté woon bi ko Abdoulaye ku ne xam na ni teg buñ Abdoulaye jon yàlla na ko yàlla yërëm respecté wu ko woon ku ne xam na ni aussi daal Abdoul Mbaye respecté ko woon pourquoi pas ñu bëgg koo respecté loo ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko rawatina bi mu fi nekkul pour man nit ku nekk da war a xool ci yàlla wax li nga xamante ne mooy dëgg te askan wi tax loolu moo tax constat bi sant na ko mu ñu def ko te ba léegi nii moom si bopp waxul ni du ko def ñun ensemble jot ñu benn note boo xamante ni officiel si moom la jógee ni du ko def kon jàpp naa ne li nga xamante ne mooy li am mooy député bu nekk war ngaa jël say matuwaay di liggéey pour askan wi di wax pour askan wi. pour loi bi nag def nañ ko ci temps bi nga xamante fi lañ ko war a defee ndax ku ne xam na ne débat bi bari na wax ji bari na léegi nag la am mooy gëm déposé nañ ko. incha allah li des mooy assemblée nationale fii ak la 15 incha allah daañu convoqué li nga xam mooy section extraordinaire ñu def ko procédure urgence bu amee fukki député ak juróom-ñaar ngir ñu jàll li nga xamante ni mooy propose loi bi. ndax boo xoolee propose loi bi li ma ci def damaa ñëw ci artigle 3 bi nga xamante ni lépp lu jëmoon ci mbirum premier ministre daf ko dindi woon moo tax ma indiwaat ko def ko nag li nga xamante ni mooy article 97. 98 99 ma tudd ko nouveau parce que nouveau boobu am na li nga xam mooy règlement intérieur Assemblée nationale bi ñu koy wat 2019 indi woon na nouveau mais nouveau boobu dama wax ci évaluation politique publique mais nouveau bi mooy wax ci li nga xamante ni ancien euh, article bu njëkk bi 97 98 99 doon na ko wax loolu moo tax que ñu déposé ko pour wax ni sénégalais yi ñun li ñu war def daan ko def Assemblée nationale li mu na ko def premier ministre li mu war def ko coow lu jeex ñu continuer ci liggéey bi ñu gis ne bari na euh, euh, lan lan ban jàpp ne euh, proposition de bi tey waaw àpp bi àpp bi comme dafay am li nga xamante ne mooy section extraordinaire section extraordinaire pour ñu am ko président de la république moo ko mën a déterminer bu di assemblée nationale wala 83 députés yi nga xamante ni mooy majorité bi. wax ni ñun bëgg na ñu am ko su boobaa automate dañ koy am kon jàpp naa ne bu gaawee si ñoom la bu yeexee si ñoom la man la ma war a def naa ko beneen mooy procédure urgente la nga koy def parce que jàpp naa ni comme ñu ñëpp bëgg nañ mu ñëw te lii mën na koo tee ñëw tey bu buñ ko jàllee dana ñëw loolu moo tax que tey ma wax ni 97 nouveau 98 nouveau 99 nouveau mooy wax ci li nga xamante ni moo jëm ci question déclaration politique générale question de confiance ak motion de censure bi loolu nag buñ ko watee lam fekkoon foofu noonu bu njëkk mu nekkoon li nga xam mooy évaluation politique générale dafay tëb ñëw ci li nga xamante ni mooy article cent cent un cent deux loolu mooy li nga xamante ni mooy proposition loi bi déposé naa ko assemblée naa dana jot na si li des nag mooy càmbar ko incha allah waaw léegi yeneen député yi nga xam ne ñoo bokk si groupe parlementaire yi muy benn bokk yaakaar muy yeewi askan wi muy wàllu gi ma bokk du liberté démocratie changement kenn ku nekk jot na proposition loi bi yëg na ko bu fekkente ni tey war nañ na dox lan war a doxal pour askan wi gis seen bopp ci liggéey bi mooy ñoom ñëpp nañu maase pour ñu wote lii ndax ku ne xam na ni faay la boo xam ni assemblée nationale moo ko def ci jamonoy Moustapha Niass ndax 2019 bi Macky Sall indiwaat loi bi pour que maanaam nekk loo xamante ni poste premier ministre bi ñëwaat la booba dañoo fatte woon li nga xamante mooy intégration bi bi ñuy def li nga xam mooy téere document bi ñoom ñu dugal ko te waruñu koo woon a dugal kon jàpp naa ne tey li lusik li jaaru moo ñu ñëpp xam nañ ni premier ministre war naa def déclaration politique ci constitution bi mais ku ne xam na ne règlement intérieur assemblée nationale permettre wu ko aussi mu ñëw parce que nekkul ci règlement intérieur assemblée nationale bi te ñi nga xam ñoo ko jiitu woon yëpp respecté wuñu sax bi mu fi nekkee délai boobu noonu kon incha allah nii ñu ko defee noonu lay sàkko député yi sama nattangoo yi ñu jàllale ko ci nu gën a gaawee ñu jàll si leneen parce que coow la nag te Sénégal dañoo